deuxième combat ngeen préparé tey Gouy Gui ak Nangu Daara ngeen préparé ay te mooy noter ah booy nga fay noter waaw ay te jafe beeree. Huh? ci quatrième combat de la soirée diggante Thiatou Puyol ak Boy Notaire Thiatou Puyol moo ñëwoon ginnaaw ngeen moo ngeen bulu ruusi Boy Notaire moo ñëwoon kanam takku bandoo bu bële bu tombeek dimanche 6 novembre 2022 fii ci arène nationale. ku ñu fi indi tey mooy Jambaar production ab baa ngay wéy ab baa ngay ñaari mbër yi Caatu Puyol ak Boy Notaire règlement yi lii lay bañ lii mooy règlement yi combat yi ndaw yi léegi cinq minutes la combat yi mag yi léegi dix minutes la <laughs> ab baa ngay waaj a nee nga ndax pare pare nañu sifflé na génn na seen diggante ñoom ñaar ñoo si des Caatu Puyol ak Boy Notaire Caatu Puyol moo nge moo mu luru si daal wan ginnaaw Boy Notaire moo ñu wan kanam daal di bandu bandu bëla bi ñaari mbëre ngay leetoo àgg nañ suuf maanaam wàcc nañ gën nañ jege suuf ba kaw ñaari mbër yi dafa mel ni dañuy bëre dafa mel ni ñoom ñaar ñëpp bëre lañ bëgg moytu xeex bi cey bi combat waaye cey le grand combat diggante Papa Sow Siteu eh, tukulóor ak séeréer ñaari kali lii mooy Sénégal Eh, Boy Notaire moo ngi jokkaas loola sunu père Mbaye doon wax eh eh waxoon na ko dafa mel suuf ni taal appui daan na ko eh jar bu daan na ko na jar bu piyal bu dóor xale xale mu si nii lan nii xale bi fu mu jógee rëpp Jàmbaar Production dafa tëgg dix combats dix mbër Parcelles dix mbër Diamaguène fu mu toll dafa mel ni waa Parcelles rawagum waa Parcelles am nañ deux waa Diamaguène ñaata la am nañ deux xanaa c'est quatre combats kon dafa mel ni deux deux premier combat fekku ji mooy waral loolu. waa yu ñu fekkee daal waa Parcelles amagum na ñaar waa Diamaguène am benn.